ci euh, yéenekaay yi ni ki tey ñaar fukki fan ak benn ci weeru août ñu tàmbali ko ak la tribune euh, moom ni ki yeneen yéenekaay yëpp ci lenn la fësal mooy benn dëkk ñetti quarité ñetti weer euh, muy nag loo xamee ni dañu koy ñaawlu ci xët bu njëkk yéenekaay bi la tribune di dellu si tamit ci ilimaanub grande mosquée bi mu mel ni dafa am fu ñu ko doon xaar mu dem daanu ji feneen grande mosquée bi nga xamee ne nag euh, foofe daanaka euh, ñi jiite réew mi ak ñi ñu àndal ñëpp ñu ngi foon fukki at ak ñaar gannaaw bi ñu ko déserté président de la république nga woon ànd ak yeneen i ministre am ba ci premier ministre Macky Sall moom euh, dalal na ki nga xam ne moom moo fi toogal xalif général murit yi gannaaw Eh, julli bi eh, loolee nag dellu si nañu tamit ca Petit Palais ca Mermoz yéenekaay bi La Tribune duñu wax nan la korité bi eh, demee foofu la populaire ne daal nii bu fekkee ni korité yi dañ koy bàyyee nii loolu mënta wéy moom moo waral sax ñu jàpp ni nguur gi ci boppam fas na yéene taxaw ci ba li am ni ki samedi dimanche ak altine bañ a am waaye nag loolu fow ñi nga xam ni ñoom ñooy kilifa diine yi jox ci ndigal euh, ñi nga xam ni ñoom ñooy kilifa aada yi limaanu euh, grande mosquée nag di mosquée bu ndakaaru euh, moom nag di xam ne daal ni ñi bëgg xeex lislaam bu yeboo ñu daltu ginnaaw ndax duñ leen ko may Thierno Seydou Mountaga Tall nag moom ne daal ni lii dafay wane lajji ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite lii di diine bi ca Géejawaay tamit yéenekaay bi Le Populaire du ñu xamal ni am na ñetti nit ñoo am gaañu gaañu Euh, benn gaz daal moom moo kalaate ci seen kaw bokk na ci ci ñaam gaañu gaañu koo xamee ni ab soxna la fiñ toll nii sonn na loolu. populaire di wax ci bés bu mujj laata ñuy déposé lii di liste yi pour élection yu sénateur yi tey jii la mu mel ni nag ca biir Benno Bokk Yaakaar mbir fippu lay gën a nuróol Le Soleil di wax tamit ci korité ñetti fan la ñu ko màggal bésub korité eh, ci jullit yëpp ñi nekk ci réewum Sénégal waaye mu mel ni ñetti weer fës ñi nga xam ne nag ñoom ñooy eh, ñi jiite diine ji ñoom nag eh, li ñuy wax daal mooy fexe ba ci seen biir xutba na jullit yëpp doon benn Macky Sall ne daal ni lii dafay wane dong ni eh, ku ci nekk am nga sañ-sañu eh, def nu mu la neexee ci sa wàllu diine ndonte nag ilimaan yi ñoom bu doon seen sago eh, ñu jàppandoo benn bés xàccandoo dóorandoo doon benn say gannaaw nag taw yu métti nga xam ni am na njiit mi ci yéene kaay bi Le Soleil Macky Sall ne daal ni dina benn plan boo xam ne daal li koy tax a jóg mooy fexe ba laata sax ñuy àgg ci weeru nawet ñu fexe ba ñi nekk ci yenn bërëb yi nga xam ne mbënn mi mën na leen yëkkati ñu aar leen réew mi quotidien di wax tamit ci ay el fitre di korité benn askan benn jëmukaay waaye nag ñetti yoon korité Ahmed Iyane Thiam ak commission mu mel ni ilimaan yi ñoom seen bopp dañ leen beddi wan leen ginnaaw Abdou Aziz Junior nag moom di wax ay dëggam Macky Sall moom jàpp ni yàlla doo nga xam kan moo am dëgg kan moo amul dëgg ca Gambie nag mel na ni am na lu fay waaj a xew ndax eh, kii di Yaya Jammeh nee na ni dina rey lu juróom fukki nit ñoo xam ne dañ leen denc ci kaso bi ci weerub septembre ñooñu nag eh, dañ leen atte atte rey mu ne daal ni ñoom daañ leen rey ci weerub septembre bi ñu dëgmal yéenekaay bi di sunu lamb la ñuy jeexalee ci wàllu tàggat yaram ba léegi ak ñi nga xam ni ñoom ñooy mbër yu ñu ràññee Modou Lo nag nee na ni jàkkaarloo ak Balla Gaye 2 namm na ko lool li mu bëgg daal mooy am revanche am Boynaar moom di dellu si ci koriteem euh, ci lutteurs yi nee daal ni moom ñett yoon la korité kon daal topp na samedi topp dimanche topp altine moom Boynaar Forza Santang ñing ñaari tigre lañ yoo xamee nag ñoom mel na ni xiif ak leen di rey waaye li ñu bëgg mooy ku ci nekk laaleeg sa morom loolu daal daañ ci gën a dellu si tunu mi gën a yaatu euh, ci midi bu tegalee fanweeri simili ak euh, yéenekaay yi jàmm